nekk ci clip bi. puuj paaj. waaw daxinu puuj paaj bi ñu togg ci kilibu puuj paaj wala puuj paaj ci boppam ki woy puuj paaj. daxin bi daxin bi. daxin bi dina ñëw ci kanam il sera notre invité ki woy puuj paaj ah euh, dina euh, dina dina dina dina ñëw euh, ci yeewu leen bi bu ca kanamee et puis daañu dem tam comme niñ leen ko diggee woon xam nga ñun ëtt boo gis Sénégal. Mhm. ëtt corridine boo gis amuñu fa sens interdit. donc tey dañuy def nekk à cheval ci ñaari ëtt nañ mhm. njëkkee yoof ah, xam nga ñu ngi waajal appel bi. Mhm. ñoom libaas laay nga xam ne diggante Yoff Cambérène euh, ku fa laay ngay wu oh, ah donc euh, ñu fa dem euh, ba ca kanamee ak suñu xarit yoo xam ne dinañ ñëw wax ñu ci seen programme et puis Pouj Patch voilà voilà Pouj Patch Pouj Patch Pouj <laughs> puj paaj bi itam euh, euh, daañu ko ambiancé bu ca kanam balaa poste de surveillance Exidex je vais rejoindre un invité boo xamante ni il est il est dafa dafa dafa xaw a particulier ah ex je te laisse le soin nga nga nga présenté ma kii fi ne nii alors kii nag moom mooy tey ki ma andi sama surprise bi ah donc muy père Madiagne Faye kii ah père Madiagne Faye père Madiagne Faye xam nañu père Madiagne Faye père Madiagne Faye père Madiagne Faye di ñawkat bu mag di defar ay saak yoo xamante ne njaxas la koy defaree. saabu njaxas xam ngeen ne saabu njaxas galaaj la. waaw waaw ñu xam ne ne di defar ay rob di defar ay rob mais ay rob. ay rob oh njaxas rob yaa ngi nii ay rob njaxas moom léppam njaxas la. Ah. njaxas rek ay rob njaxas. dinaa defar ay près ay près du corps njaxas. góor yu Mm. père Sénégal kenn yooyatu fi dégg waa waaw kenn yooyatu fi xam nga ñun mën ñoo yooy buy rëy waaw am na yu rëy kenn yooyatu <laughs> dinaa ci defar yu rëy xam nga defar trait de corps tout ce trait de dafa xew ci jamono wax ju egg dafa ko moom de Pape Cheikh tubaab la ex neex ma ah. dafa original ex bu ko nee demal reportage moom ku mu taseel ne la ñëwal <laughs> bu taseeg pël Fuuta da ko ñëwal yeewu leen. bu taseeg defar ko Pape Cheikh xam nga xam nga xam nga xam nga tamit xam nga Pape ah, xam nga li gën a neex ci lii ah, ah, ah. moom mooy euh, lii moom moo lay prouver que ne à tout bout de champ foo mënti dem Dakar gis nga ne Sénégal yaa ngi bay seen waar am seen métier bop ne lii machine bi tubaab bi créé xëy na pour def ci ay yeneen tenue la mais da nga gis ne ñoom dañ koy jël créé ci ay métiers. sa benn copain bu tudd moo léegi la fi woote da ngeen romb rek da seeg waa ji ne ko grand mun nga ñëw yeewu leen suba de. Ah, moo sax moo négocié moo day sànni xeer moo day sànni moo day sànni xeer moo day kii on l'avait programmé depuis. mais Pape Cheikh mais toujours rek ah dans dans la joie. il faut que ñuy euh, ce qui ce qu'il faut retenir moom mooy que c'est c'est de la consommation locale. bi tey ay yëre la yoo xamante ne ku nekk mën na ko sol te c'est design xam nga style boobu nu mu rafetee. donc consommation locale alors. consommation locale dañ koy bàyyi mu defaral ñu ci biir émission bi ah déjà xeetu machine am defe naa dégg naa ko gis. waaw ci may bu may jamonoy may yu njëkk yu yàgg ya. waaw la joor la joor la joor la joor. moo tax mu indi ko sax <laughs> moo tax ñu andi ko. waaw moo tax mu indi ko rek waaw. waaw léegi capuchon la bii capuchon la. <laughs> léegi tàngaay bi xam dañ nekk ci tàngaay bi muy waaj a ñëw. waaw moo tax ma def ci capuchon ak genre pan caaya bu ànd ak pantalon. bii tee ma ko sol tey. bii dama la koy yaa koy sol. parce que seel ma xool. bii bii moo nekk caaya. léegi pantalon la. voilà léegi <laughs> dama lay wax. waaw waaw. Eh, léegi nag. waaw dama lay araftu nag gis nga buñ dee wax nag. waaw da ngay da ngay kii rek da ngay. da ngay da ngay ràmbal bu taxaw voilà ah, bu ñu bu ñu indil benn wax nag ah. père la sama la moo tax dama ko miin dëgg la dëgg la baax rek voilà léegi kon dañ nga won ñu waaw euh, euh, naka ngay liggéeyee njaxas bi ah njaxas bi daal nii koy defee naa ko defaree ay bande ay bande ah. waaw naa ko def tamit ay yu carré yi ok waaw su ma defee nii damay dawal uh-huh. ma dawale ni <laughs> sama yaay lii la daan ñëwee à l'époque <laughs> léegi su ma ko defee nii ba mu nekk ay band mm-hmm. léegi ma xool couleur yi nga xam moom laa koy booleel ba mu nekk ay band mm-hmm. léegi bu nekk band ba mu mat tissi mm-hmm. après ma doo ko passé passé ba passé ba mu tàlli léegi nag modèle nga xam nii nag moom laa ci xalaat moo xam robe la moo xam caay la moo xam grand boubou la moo xam pantalon da ngay yëpp ba pare quoi taxal ba mu mat ma passé ko ba mu sell uh-huh. doo ko xool nag modèle bi nga xam man moom laa ko ci bëggee ma ñëw ko di ko jaay pour dante sama doole. ok waaw ci biir loolu nag yéen maa leen di gërëm waaye tey. yow kay gërëm di bàyyi di gërëm sama mag ju baax bu ñuy wax Youssou Ndour. Youssou Ndour ak sama benn jigéen bu naan Yacine. Mhm. ndax moom loolu lépp moom moo toppatoo ba ma ñëw fii toog nee mhm. naa ko ci yàlla fu mu bugg a àgg moom Yacine yàlla na fa yàlla àggale di gërëm sama benn jigéen baax bu ñu Oulimata Diop Oulimata koy delloo gërëm mais man dama la xàmmee sax da ko booru booru rue 15 angle man maa ngi dëkk jëppal. ah jëppal ok kër Latifa Fadel laa nekk. man Castor laa nekk mais maa ngi dëkk Latifa Fadel. Oulimata Diop dafa nekk sama jigéen bu baax yóbbu ma kër yaay ma nekk ci ñoom mu may jàppale pendant ñaar fukki at ak juróom maa ngi kër Oulimata Diop may jàppale man nag dama koy gërëm saa fu ma nekk di gërëm sam benn waay bu naan persis ak Aline Mbaye Ndeer tamit dama koy gërëm ndax ñoom ñëpp samay mbokk la mais père ko ko ko jënd xam nga tax damay wax damay wax pour pour pour ne yàq baaxul jëlee ci sakkit nga gis ni sama mbokk téer yi nga xam dañoo am yërmande ñoo ma koy dayale ci ay mbuus ñu ma père yow comme lii sa liggéey la saa nu kiyete nan la ko dajaleel comme ça nga ci am dara moo tax sekki du ma ko parce que yàlla bëggul yàq di yàq rek di ko di ko yàq ma xam loolu comme moo tax man ma koy dajale di ko paas di ko def ay yére di ko jaay pour mm-hmm. de ba parce que xam jaxas li am ci jaxas mm-hmm. kii boo ko amee seytaane du la dara cat du la dugg ku la liggéey day toj te day indi wërsëg moo tax jaxas dinaa ci defal loo ci xalaat dama ko ci defal dóoral ñu benn léegi waaw waaw maa ngi leen dóoral benn waaw ci ex jaajëfatee. jaajëf nga fi nuyu naa la <laughs> alors me rejoindre Alfie.